constitution dina ko nangu ma gëm ne mag Sall ko nangu kon waa PDS même bu fekkee ne kii nga xamante mooy Macky dina euh, amnistie Khalifa Sall dina mm. amnistie waale li nga xamante mooy waa PDS mooy Karim Wade et waa PDS dans ce cas dinañ génn xamal sénégalais ne demuñu si dialogue musuñoo wax ak moom dialogue te la mu def moom la concerné waaye ñun ba léegi ñu ngi jàpp ne ñun lekkuñu benn alalu askan bi kon ñoom ñi nga taxaw foofu duñ dem dialogue du dem dialogue mm. te li ma jàpp mooy Macky Sall boo defu ak moom dialogue boo defu nang dëgg sa carte sax c'est pas sûr mooy tax ñuy amnistie nag ba dugal ci mbiru Franck Timis ak ñoom Aliou Sarr ah, parce que yaa am na ay points yoo xam si ne dafa nekk ci biir nañ leen dem alors at yu weesu yëpp gis ne opposition bi quand même euh, xaw nañu leen sonal lool euh, ci euh, ci langue politique bi est-ce que aujourd'hui ñii xalaatee ne dem ci dialogue boobu jàpp nañu ne aujourd'hui le président Macky Sall mën na cee jaar diviser encore une fois cette opposition là est-ce que loolu mën nañ ci tàbbi. mais euh, dialogue saa bu amee da ngay gis ni euh, du ma ne effectivement noonu la jamono ji mais saa su ne da ngay gis ni souvent nguur bu nekkee wala njortu ni mi ngi en position de faiblesse. souvent si lay gën a apte à appeler à dialoguer des fois tension dina yegg benn niveau boo xam ne. nguur gi xam ne lii bu wéyee Sénégal wala. kii bi di nekk terrain bi di nekk toujours tension di am en réalité du ko arrangé parce que lu bari dina ko gàllankoor donc si jamono jooju dafay woote dialogue dialogue quel que soit son niveau de sincérité euh, calcul politicien du si ñàkk te calcul politicien bi ka woote dialogue moom bu sañee bu ko mënee xolal il va il va il va il va également mettre créer les conditions mhm. d'une division de l'opposition parce que itam loolu da koy da koy arrangé parce que ñaari dialogue yi am yëpp Mohamed bay xool euh, kii mu gën a profité mooy président Macky Sall. bien sûr. que ñetteelu dialogue bi opposition bi dina demee si noo xam ne moom da leen di tasaare ba pare wëlbatiku moom la cay gañ di am moom mu ëppale mu ëppale si li nga xam ne ko jegi parce que huit mois de la prochaine. de de de ah. euh, à la à la à la présidentielle. donc il faut quand même que ñoom ñu xam naka bu dee dañuy dem ci dialogue bi naka lañ ciy demee wala boo boog ñay nangu dem ci dialogue bi naka lañ ciy demee dans quelles conditions. wax naa ko fi ñoom teg nañu plateforme déjà mooy F24. F24 boobu ñoom war nañu mën a ci sama xalaat war nañu mën a instaurer le dialogue au sein de leur plateforme au sein de leur plateforme ñoom ñu tànn ay leaders. si biir yi wala bokk ñu tànn si biir leader yi wala si biir société civile yi. Mhm. ñoo xam ne ñooy nekk seen ay plénipotentiaire mhm. ba pare porter seen bëgg-bëgg devant le président Macky Sall. Mhm. ba nga xam ni entité institut yi maanaam entité unique bi du dem moom ne man dem naa déedéet ñu ne mouvement kii coalition gëm sa bopp moom yónnee na coalition yeewu yónnee na. non non F24 ñoom la ñu tëgg. su booba est-ce que dinañ am Ablaye su boobaa est-ce que dinañ am dialogue bu nga xam ne moom la ñu jàpp ne dialogue sincère doon ci bu ñu gisul euh, ñi nga xam ne. ñoo non moo tax ma ne la kay dem. Mhm. il faut mesurer ñay dem il faut mesurer leur poids politique. absolument. c'est important leader yay dem il faut ñu mesurer seen poids politique. important. ñaar yooyu dafa dafa am <laughs> sens. c'est parce que euh. dans toute organisation il y a forcément deux pelés et trois tondus mhm. forcément. am na ñoo xam ne dañuy dem te boo ay boîte almet lañ te boo ko ubbee benn beneen moo fa des. Euh, dëgg la de. déedéet <laughs> waay non amuñu poids. <laughs> mosuñu dem élection mosuñu participer ci élection mosuñoo teg caution. Mm-hmm. xamuñu ko. amuñu sax li nga xamoo di siège. permanence amuñu ko. gis nga le doyen suñu maam Amadou Makhtar Mbow. dans le cadre de la commission nationale de réforme des institutions wax na ko courrier yi mënoo ñu ne parti politique yi. yu bari gendarme yi moo motard dañ koy andiwaat parce que duñu gis permanence <laughs> parce que am na parti politique yoo xam ne. Eh. saalu secrétaire général bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy salle de réunion mm-hmm. donc il faut quand même ñu xalaatee ko noonu man si sama gis-gis pour ñu bañ. pour ñu mën a moytu li nga xam ne moo di féewale parce que itam gis nga chacun dans l'opposition est parmi les principaux ténors de l'opposition ku si nekk il a ce que l'autre n'a il doit travailler à avoir ce qu'il n'a pas et a dégg bu baax parce que tey jii nii boo jëlee yeewi dafa dem ñaari élection à travers ñaari élection yooyu ñoom ils ont une tournée nationale yaa ngi dégg koy xool def na au moins trois fois li nga xam ne Sénégal donc ñooñu am chance boobu am nañu loo xam ne am nañ ko ba pare te am na ñoo xam ne ñi nekk candidat déclaré te amuguñ ko wala boog buñ ko amee si benn pàcc kese la parce que dafa guñu li nga xam ne moo di tour tour tournée yu yu yaatu yooyu donc ñoom loolu il faut ñu xam ne waruñu ko def ko bii gañ bi perte ñoom dañ ko war a fortifier dañ ko war a densifier dañ ko war a conserver dañ ko war a amplifier amplification boobu mooy tax ñoom dialogue bi dafay am ay conditionnalité yoo xam ne buñ ko tegee voilà bu président Macky Sall da si da siy ànd. loolu am na solo alors euh, Kader ñu tàbbi ci euh, beneen point bi muy affaire Sweet Beauté le procès Ousmane Sonko Adji Sarr enfin euh, enrôlé en tout cas pour le 16 mai aujourd'hui laaj bi samp mooy ndax mën nañu enfin daañu mun a vider dossier bi nga xam ne en tout cas jural na Sénégal lu ci bari bari ci ay nit yu ci faatu ay nit yu perdre seen i ay liggéey ay nit yi nga xam ne seen place liggéey également na yàqu na ci. ndax enfin daan ko mën a vider à travers cette date là. waaw d' un premier pas parce que comme waxoon nañ ñu du am ñëpp ne dossier bi du am ñeewaat ne du àgg tribunal ne day du xoolal. procès du am procès du am. waaw mhm. léegi nag procès am na. attendons de voir lan la loolu di joxe yan argument lañ ñuy tegal et je pense que ni cette fois-ci les deux parties du côté de Adji Sarr comme du côté de Ousmane Sonko. yi sollicité woon. il faut la rappeler ñoom nañ dem tribunal procès leeral foog waa léegi nag je pense que ne li ñu dal ci dossier de diffamation bi ñu génn du ñu dal foofu mhm. parce que il faut que ñu jël seen ay responsabilités parce que neex bëre naqari bëre bëgg bëre bëre bañ bëre bëre tey ji bu tribunal bi mari taali tàkkoon lépp tas Sénégal yu bari faatu ñetti nit dong dund ci Mohamed bu ñu ko nettalee ni mu demee dañ koy bindaat xaatimaat ko ubbiwaat dossier bi donte ne ñetti Sénégal ñoo fi des ak peut-être seeni ay sët ak doom dañ koy àtte il faut ñu nangu loolu gis nga dëgg da koy nangu pare doo ko dem ci loolu mooy dossier bi du ñu ko jéggee lu dul dañ ko àtte comme du ñu ko jéggee te àtte wuñu ko nañ ko def benn yoon dem ci nag ak ay responsabilité yu mu sëkk dem ci ak conscience bu tranquille que côté les avocats d'Ousmane Sonko que Ousmane Sonko que aussi aji Sarr ak ñu mu àndal ñu bañ a leurrer les Sénégalais ñu bañ ko aussi def dossier politique nañ ko yemale ci affaire civile ñaar ñu am jafe-jafe ñu war leen a àtte que bu nu ciy dem bu nu ci def ay ay ay appel yoo xam ne si dafay taal dëkk bi jaru ko li ma la wax léegi bu ñetti Sénégalais desoon bu ñu bindaatee dossier bi dañ koy àttewaat bu benn Sénégalais desee moom mooy rendre verdigam parce que ni moom lii moom moo indi Sénégalais yi faatu maa fi des kon jaru ko kon jaru ko nag nañu dem ñu àttee Adji Sarr am na dëgg na ko jox nañ ko jox dëggam bañ ko ko xañ Ousmane ko am na dëgg bu ñu seet ni kat dafa am ñeneen ñu ne loru ci ginnaawam nañ ko jox dëggam à partir de là nag ci la ñuy doog nag wax fi ñun on est fier ci suñu justice. Adji Sarr nee na am na ay preuve ay avocat taxaw nañ am nañ ay preuve preuve yi nag mi ngi nii moom la xaar léegi nag pour le 16 je pense que je ne pense pas que ni lépp dina ci xëj ci benn bés ñëw ñu àtte peut-être que renvoi dina ci am mais bu boobaa nañ fexe ba jàkkaarloo bi ba mu ñaaw. bu mu ñaaw euh, gis fu ñu toll nii li ñuy njëkk wax mooy bu mu ñaaw ba pare. bu mu ñaaw bu ñaaw cest à bu mu ñaaw mooy li fi amoon. ba ay nit ñàkk seen i bakkan fii ak fi ñu jëm. bu mu ñaaw parce que neex bëri naqari bëri dama la tënkal wax bi moo tax man dama koy gàttal cest à fi ñu jëm mënuñu leen a jiitu Ousmane li ko dal ci dossier diffamation bi dafa metti coow li bari na ba egsi fii te teewul ñu àtte ko malheur pour ñi nga xam ne ñu ci faatu te fekkee wuñ ko te seen i njaboot ñàkk nañ seen ay doom ñi ci ñàkk seen i liggéey ak seen i alal te dossier Ousmane Sonko waral ko mënatuñ koo bëgg wala mënatuñ ko respecté wala mënatuñu bëgg aussi li nga xam ne moom moo di suñu justice. Mm. ndax li ñu ñàkk moom moo ëpp te seen yoon newu ci. li ci jëm nii. Mm. comme li ma la wax rek neex bëre naqari bëri bëri. mi ngoog bu mu ñaaw kay mu ñaaw kay nga wax moom kay ñaaw na ba pare xanaa kay eh, Kader. bu moom kay ñaaw na ba pare xanaa kay day gën a ñaaw waaye kay ñaaw na moom ba ba pare wax yàlla. mun naa mun naa mun naa bañ a gën a waaw mais ma ne non ma ne non ma ne comme na ba xanaa nag day gën a ñaaw waaye ñaaw na ba pare parce que Ousmane Sonko moo fi le seul bi nga xamante ne bu ñu koy attee ñi ñi muy jàkkaarlool dañuy dem tranquillement si li nga xamante mooy tribunal bu laajee sax ñu lekk glace ñu lekk glace moom la ñuy pamte pamte moom la ñuy génne si oto moom la ñuy duma ba muy bëgg a dee ba gi démoo njaay seq na ko fekk ki nga xamante ne mooy maam may ñaa tranquillement la maam may ñaar di dem li nga xamante ne mooy tribunal moom ñu koy jag-jegee di ko di ko def di ko di ko duma duma yu métti ba mu xaw see dee moom Ousmane Sonko ma ne la ñaaw naa njot ne bu ñuy dem amook Adji Sarr Adji Sarr tranquillement lay demee tribunal waaye Ousmane Sonko bu deful nang dëgg jag-jagee ak la nga xamante ne mooy euh, jël si oto bi du duma jag-jagee yóbbu tribunal mooy amati kon ñaan ba pare beneen bi aussi mooy dama ne Mohamed mun maa comprendre ndeysaan koo xamante ne euh, c'est le c'est opposant Ousmane Sonko la muy dund amul benn opposant bu koy dund si régime bu Macky si jamono yu ñu nii koo xamante en deux semaines si intervalle deux semaines ñaari procès mi ngi lay xaar procès diffamation bi le huit bu ñu si jógee le seize nga xamante da dem si procès li nga xam euh, man yàgg naa ko fi procès foofu mu am waaye man bañu procès parce que dama bëgg mu xam xam nga euh, sama jafe-jafe mooy man damaa bëgg xam lu xew damaa ku nekk ñu koy jox sa mais projet buy am aussi nañ ko teg si yoon ba sénégalais yi yeewu parce que suñu réew mi kenn du ko salfaañe suñu réew mi ni kenn du ko tayale ba di ko di tàkk lu tax ma wax ko mooy moo xam ne mënumaa comprendre que ba kii Demba Ndiaye ki nga xamante ne mooy Sitor Ndour la lañ ko bàyyee mooy euh, li nga xamante ne mooy bénéfice du lan moo tax mënuñu koo may kii di Ousmane Sonko si diggante moom ak Adji Sarr parce que Adji Sarr si lan la basé wu au moins Sitor Ndour damaa dugg nettali man kenn waxuma Sitor moo ne kii di ndaw si jotul egg si moom kii di Ousmane Soucouna moom mi di ndaw si jotul egg si moom ñun ñëpp ñu waxoon ne kii di ndaw si nga xamante ne moo ko séq ak Sitondu dafa li nga xamante ne moo tax ñu téye Sitondu loolu la ñu waxoon kii nga xamante ne mooy aji sax andi certificat médical ne ñëpp ngi laam laamee ndax est-ce que am na li nga xamante ne mooy relation sexuelle. en en plus léegi nag léegi nag wax ji mooy. Mm-hmm. Euh, décidément li nga xamante mooy la procédure judiciaire a déclenché sur Ousmane Sonko. saa bu jugee si lii dal si léeg-léeg dal mooy wax ji mooy lan lañ koy fa lan la waajal lan moo tax mu nekk pression bi parce que man mooy suma question bu ñu demee si procès bu ñu ko si laalee am na ñu si dégg am na ñu si wax am na loo xamante ku nekk tudd nañ fi li nga xamante mooy Mamou Diallo tudd nañ fi nga xamante mooy euh, ay Baye Mbaye tudd nañ fi ñu ay tur tur yi ñu ay convocation est ce que dina respect ñoom ñëpp ñu ñëw toog ku mooy say sa sa témoignage. loolu yëpp ma moo tax loolu wax ji nag mooy wax ji nag mooy wax ji nag mooy li fi am nii yëpp xam nga boo gisee mu am mooy Ousmane Sonko dund lu metti li pour ma daaneel Mohamed mooy parce que aussi gis nga ñee ànd ak Ousmane Sonko mooy ñu ko bëgg bëgg ba gën a baax mooy bëgg bu ànd xel ñi ko bëgg yenn saa aussi dañoo àntu xel. xelu ñëw dañoo xeluwul parce que xel bi mooy bu ñu ànd ak moom dañ ko yóbbu si li nga xamante ne mooy préparer ko ba waa ji muy Ousmane Sonko du am benn jafe-jafe devant ñi mu jàkkaarloo. parce que nag boo demee ba gëmloo Sénégalais yi ne kii di Ousmane Sonko. moom dafa sell ba kenn du ko laam-laama fii mooy bloqué nga ko fenn loolu moo andi tey jafe-jafe boo demee ba ne Sénégalais yi ne gëmloo na leen ki nga xamante muy Ousmane Sonko que moom ku ko bëggul ne ko patriote wala sax yow bu ko sirim wala yow yow sa bopp sax ne ko dëgg am dañ koy mere ba dañ koy si combat bi boo demee ba jàpp ne Ousmane Sonko moom si boppam dafa euh, gën ne mook Sénégalais yi nekk ni muy ñi mu jàkkaloo jàmmaaloo kase la kon yow andi woo jàmm léegi nag wax ji mooy Ousmane Sonko li yëpp mën na ko leeral wax dëgg yàlla bu toogoon tey gëmloo sénégalais la mu séq ak Adji ak lan moo tax mu dem fa Ousmane Sonko ñun ak ñun ak ñun ak Ousmane Sonko ay sénégalais lañ. oh ne sain ñu ñëpp ñoo yem bu génnoon wax li xew parce que ba léegi. waxul li nga xamante moom la séq ak Adji Sarr. bu toogoon wax sénégalais ne nii ak nii da demee ku koy jàpp jàpp ko. ku koy bàyyi bàyyi ko waaye kon duñ dem si manipulation yi dem ba nga xamante ne tey coow li fii la bu ji li yëpp nekk na mooy. parce que ku nekk da ngaa am loo nëbbu am loo téye ñii bëgg a faagaagal bëgg nax ñeneen xel yi moo andi coow li te c'est alors Ablaye Mbow procès baax na waaye dafa am ñu nga xamante ne nii dañuy sàkku en tout cas ci ñaari pàcc yëpp quand ñu respecter droit ñaari pàcc yi parce que fii procès yàgg na fi am ñu naan droit kenn ki salfaañe nañ ko droit kenn ki salfaañe ko ba sax ay yeneeni mbir da ciy xew alors naka nga jàngatee déjà ni ñu enrôler euh, bile bile bile bile bile bile dossier ak justement euh, sur le plan jëm ci wàllug euh, lu ñu war a respecter en tout cas muy àq ñaari ñaari hmm, dañoo war a respecter d'abord présomption d'innocence Ousmane Sonko mhm. te boobu ba léegi nag ñu koy violé bari na mhm. moo def c'est le violeur c'est le nangam nangam ni ceux qui ont violé véritablement la présomption d'innocence d'Ousmane Sonko mënuñu leen compter. te leen quand on est un violeur de la vérité. on est aux portes du proxénétisme du mensonge. te loolu nag moo di dëkk. defe naa nag par parloo ak far farloo ak di ñaan kii ñu dagg bopp bi pour man ma mën a positionné wu. defe naa nag euh, yaa ngi bëgg jël place su yàlla. dëgg la de. bëgg dëgg la parce que. moom mi dogal la kay fal <laughs> kay fal kay falu. <laughs> bés ba yàlla mooy jël mooy jël cofeel roof ko si xolu électeurs yi ñu daal di tànn xobu ki nga xam ne moo di Cheikh Amadou Bamba ngoon ñu ne. te kenn du si mën dara kenn du si mën dara. Hmm. ñu koy mën di fàttali parce que euh, gis nga Mohamed Cheikh Sadji Mané jamono ngi ñëw ah jamono ngi ñëw wax boo moytul fen la. Hmm. kon boog dëkkeel dëkkeel ak ak istixfaar. Hmm. boo boo moytuwul ah, lépp looy lépp lépp looy doxee. toññaange la kon boog del del dëkkoog salaatu salaatu salaatu ala nabi yaa ngi dégg euh, euh, ba ba tax na jamono ji il faut quand même que nit ñi war mën na ñëw revenir à la raison et éviter la partisanerie à outrance j'ai l'habitude de dire que quand on le prolongement des langues ensanglantées véritablement on est sur le théâtre des bêtises par rapport ak li nga xam moom la ñuy jëm si procès à la coulée àll parce que dès l'instant que doyen des juges renvoyé na ko devant les chambres criminelles mhm. mais conséquence bi mooy dañuy xaar ñu fixer date pour procès mais nag li xam ne moo di la ñuy njortu ni ak ak yelef ngi koy salfaañi mënoo def jugement en première instance si wàllu diffamation deux semaines après nga nga woote waat procès te boo jëlee procès Madiambal Diagne ak le juge Téliko mu ngi si table euh, cour d'appel depuis deux mille vingt et un daanaka mhm. boobu ba léegi jukkee guñ ko dossier boobu ñaata appel la fa fekk te dossier appel yooyu yëpp kenn jukkiwu ko donc forcément dinga ne même bu dee yoon yoon may na ko mu doxalee ko noonu ci yoon forcément c'est sujet à interprétation c'est sujet à des commentaires et encore une fois les commentaires sont libres donc nag dem ci procès comme ni ko kii waxee c'est pas parce que le 16 la ñu woote que le 16 procès bi day di ubbi mën nañu ñëw le 16 ñu taxaw ñu renvoyer ko à une date justement est-ce que narul nekk procès bu gën a gudd compte tenu de tous les éléments. ñi ñu war a déglu ñu war a teew ñu war a ñëw les éléments parce que parce que tamit comme fi foofu nag foofu nag li nga laaj foofu la yemee solo. Ah. maanaam ñu respecté ak ak yelleef. absolument maanaam kañu soxla à la barre bu dee am na à la barre ñu daal di koy woo parce que boobu léeg yaa ngi dégg ni am am na photo am na waaw am na ñoo xam ne waaye deux mille vingt et un ba léegi amul kenn ku génnee amul kenn ku génnee gum eh. ak sagaru sagaru euh, preuve si wàllu vidéo te loolu sax du preuve encore une fois ma nga dëggee dëkki naan nit yi am na yoo xam ne génne nañ ko mais par rapport ak yoon c'est des éléments de preuve ce ne sont pas des preuves ce sont des éléments de preuve. de preuve ak preuve bokkul. non bokkul éléments ce sont des éléments de preuve donc il faut quand même que ñu dal. parce que itam y' a désormais xoolal y' désormais la jurisprudence Sitor Ndour. ah désormais la jurisprudence parce que fële dañoo ne am na certificat médical bu disculper nit. fii ñu ne am na certificat médical bu incriminer nit ki. te gis nga ma Mohamed laajteel gaa ñi euh, xale bi jiñ Sitor Ndour nu mu tudd laaj leen ko. laajteel. ñi xam bëriwul de xale bu jiñ Sitor mu tudd. ñi ko xam bëriwul. parce que ab liggéeykat la si biir kër. te nit ka que mu jiñ tamit xam nañu ko. ak na mu féete donc forcément di nga am un regard de calcul politique. Bien dans, dans le dossier. <laughs> malheureusement di nga ko si am. xale bi jën si doon laajteel ñiy défendre naan aji saar aji di défendre laaj leen ñu si bari laaj leen tur. guni googu am 16 ans. duñu la ko wax duñu la ko wax. en plus 16 ans. Mm-hmm. te itam li gars bind si wàllu certificat médical bi. ak lii nga xam ne am na ñoo xam ne wax nañ ko wala ñu bind ko ni ko am na beneen contre expertise bu ne beneen certificat médical mais kaka def ce n'est pas une personne habilitée à pouvoir le faire te pourtant ba ñu yeggee si devant le juge da ko libéré bénéfice du doute te pourtant foofu jàppoon nañ ni noo non kii amul échappatoire amul échappatoire loolu lu ñëpp jàppoon parce que certificat médical la ngi nii bu ko bu ko boo xam ne da koy da koy dugal. man man man je ne suis ah? pas d'accord. non non <laughs> à ce que tu sois parce que je ne m'adresse pas intrinsèquement à toi pour essayer de te convaincre toi. Ah, c'est sûr. Ce que je dis, ce sont mes qui me sont propres. C'est ma part de vie, c'est ma vérité, c'est ma position. la nga wax léegi ak la nga wax sa njëlbéenu wax boobu ba léegi est-ce que d'accord naa lépp est-ce que d'accord naa si dara. su tu es libre tu es libre de ne pas d'accord ñi may seetaan. Mm. jamono ji. à travers la Sen TV di ñu déglu à travers Zik FM. bien sûr di ñu suivre les plateformes am na ñoo xam ne nañu mbaw la ngay wax waxu kasaw kasaw la. du ñàkk. du ñàkk la démocratie c'est de la parole. mais li may wax nii gis nga mm-hmm. xoolal. Mm-hmm. du question d'accord de. parce que je ne suis pas dans le commentaire absolu je suis dans l'analyse de fait. je suis dans l'analyse de fait parce que li may wax fait la par rapport ak li nga xam ne Bamba mooy dossier. bien bi ba ma ne lii la ñu wax. ak kii lii la ñu wax te bu ñu yeggee sa cappaandaw ga juge ba juge affaire bi nee na moom bénéfice du doute lay accordé parce que daal affaire bi leeru si boppam xëy na en toute conscience xëy na en toute indépendance xëy na en toute habilité liée au respect des lois et règlements et des textes mu jël décision finale ne yow mi libéré naa la. Mmh. pour au bénéfice du doute même su fekkee ni. Mmh. on peut sous-tendre que ni il n'y a pas extinction. des faits parce que xëy na ñeneen daañu porté daañu porté mbir mi feneen. foo xam ne fa la gën a kawe. pour li pourquoi nga ne xam nga lu tax. Hmm. Euh, dafa cité léegi kaw Sitor Ndour comparé ko ak kaw Ousmane Sonko. donc différence bi mooy Sitor Ndour dès que situation bi am accusation yi am la gendarmerie dafa dem këram saisir ay dra ak ay bagages yóbbu donc c'est les quarante-huit bi loolu amee ci lañ def yooyu yëpp def enquête déglu